on va enchaîner tout de suite avec nos coups de cœur balaa Papa Ndiaye du ñu woyal 9h28 mooy doog a jot tey nag coups de cœur yi comme chaque lundi on a choisi trois chansons qui font chavirer des cœurs. exactement Pape Cheikh te dañ koy commencer États-Unis voyage bi. ak euh, single Rihanna bu bees bi 4 5 5 seconds pour 4 euh, à 5 secondes. Mm. Euh, woy bi nag c'est un peu kenn koo xam ne dafa dem ba xaw a maandi nekk commencer di délirer. bëgg ko ci génne. wallaay naan mm. bëgg naa fi ak lundi lii ma nekk ma génn ceeg. yooyu yooyu expliqué xaw ma parole yi touché nit yi xaw ma clip bi nga xamante ne daf ko def ak Kanye West ak Paul McCartney bu euh, Beatles. Mm. Euh, parce que c'est un clip assez simple vintage jean lañ ci sol nekk studio def ko en noir et blanc mais n'empêche que en deux semaines am nañu cinquante deux millions de vues donc ñu xool clip bi ñëwaat. yow de tey di nga am cent millions de vues ndax vintage nga ak sa greffage bi. <laughs> ah lu leer laa la wax tey moom émission bu buzzé rek yow la. xale bi et puis ñoom ni ñu wooyee dañoo mel ni ñoom Aretha en plus ah euh, euh, je parle même pas vidéo beeg noir et blanc beeg liñ ci sol mais boo dégloo rythme bi ak façon de chanter bi ça rappelle un peu le des Beatles oui ça ça ça rappelle les anciens. normal Paul McCartney lañ àndal bi boo ko bëggee résumé mën nga ko def en trois mots Pape Cheikh studio jean et ak fan. Euh, Mali avec. Fatoumata Diawara man damay wax tout le temps que c'est l'une des grandes voix euh, du Mali. Ah. parce que ci même lancé que ñoom Rokia Traoré la nekk man ak moom bi ñuy casting pour benn film lañ doon def. Ah et finalement on a gardé contact et j'ai vu que vraiment développé au fil des années. Mm. Euh, d'ailleurs euh, son bi ñuy waaj a déglu mi ngi tudd Timbuktu mooy bi Abderrahmane Sissoko joué euh, euh, réalisé dernièrement mu génne album commencé def clipam j'étais fière de pouvoir l'inviter 3 à Télé Sud ñuy wax ak mais booy wax moom day sëgg xaw a timide mais voyez rek mm-hmm. ñu xam ne talent kese la. elle a une très très belle voix. Ah. Euh, beaucoup de talent comme tu le gis naa ne que am na ñu bëri ñu mu yóbbu ci plateau bi ñu xaw a voyagé. moom la Papa Papa Ndiaye di wax léegi nii boo nekkee artiste ci benn dëkk. la war rek mooy jéem a jaay sa yëf. mooy yoon xam nga ñoom euh, imagine maliens yi tey Oumou Sangaré les bien respectés wala mm-hmm. Rokia Traoré te ñun xam nga euh, daanaka Youssou Ndour dong la ñu am ci kuy exporté mais ñoom ñoom ñëpp ñu ngi xeex Salif Keita Salif Keita mu ngi mu ngi mu ah, keneen ak keneen mu ngi exporté te ay xale léegi xale yi ñooy exporté léegi mais mag ñi fii ñooy exporté Baba Maal Youssou Ndour euh, ainsi suite Ismaël Lo Omar Pène Thione Seck mais ñoom xale yaa ngi yóbbu léegi feneen quoi xale yi ñooy dem au niveau de

aussi les noms Kenya, je pense. Mm -hmm. Quelque chose comme ça. Mhm. Je vais rechercher encore. En tout cas, Tchad, quelque, quelque chose. C'est en mhm. euh, bi mu ñëwee di leen jël si nuyu leen ne leen man la Beyoncé enchanté lañ ko wax xam ñooñu sax kuy Beyoncé. ndeysaan. Oh. ñoom ñoo ko jàngal woy bi. fecc bi plutôt ça fait plaisir. gis ko mu dem jëli leen fi ñu nekk def ñoom clip bi te sàcc ko noonu noonu rek. ci YouTube bi complexe baaxul li ngay wax complexe baaxul. li nga am wane ko. da da ngay ficci léegi bu ñu jógee euh, Mali dañuy ñëw nag fii Sénégal. Sénégal Pape Cheikh avec une belle voix tu l'as dit nekk euh, Viviane Viviane nga xam ne woy bu. Euh, bi mu bi mu woy sa anniversaire bi ngay jooy ba naan ko Viviane nax ma nag daf ko woy je pense que woy bi dugg ñëpp mhm. ñun ñëpp ñu commencé nekk di fecc mhm. d'ailleurs man tympanise naa ci nit ci bu baax bi ma ci jógee ngeen baal ma àq mhm. parce que dañ ko doon teg en boucle en fait euh, di ko déglu di ko dégluwaat parce que woy boo xam ne la je pense que képp kuy bëggante euh, dina la neex surtout ak lëmbal bu tax bi ci am ci fin bi ñu seetaan nax ma ñëwaat kaay wax ma ki la la tiitaroo daamul fañ la bëggee. mooy dëgg. Mm-hmm. donc euh, boobu sa coup de cœur yi la bokk et ko def ci ñaari version ci album bi ah, am na bu gën a soft euh, très acoustique mu def ko slow boobu itam euh, am na ñambaxtaan waaw. am na waa gaa man mooy Pape Cheikh fin au clip bi. Hmm. foog naa ni may def defu ko kenn. maa da ngaa amoureuse. Hmm? Ah. da nga amoureuse. waaye ma fin bi waaye may ma fin bi waaye da nga amoureuse. wala lëmbal bi dafa lëmbal lëmbal bi nga bëgg. wala lëmbal bi waaw lëmbal bi nga bëgg waaw. waa di sa mbëggeel dafa lëmbal lëmbale. déggal loolu waaw déggal loolu. ko boo ko jëlatee nëbbu ko jant bi ba bu ko yaayam gis dégg nga c'est conseil de grand frère. à <laughs> merci c'était les coups de cœur comme ah, chaque lundi. ah oui Fatou koy. Zahra moom ba ay Samba maa loo ko wax rek du ko xam. mais clip bi nice na trop. <laughs> ah oui Viviane Viviane ah? ah, sama xarit la di mhm. ku yéwén. Mhm. waaw ku baax. waaw def na leneen vidéo il faut ngay changer. c'est vrai ci période bi. waaw waaw. bu anniversaire bi surprise. waaw def na affaire yu nice sincèrement ñoom jigéen ñi moom.